TV jërë ngeen jëf sëriñ Xaadim benn mbir a ngi bu askan wi teewoo mu jëm ci jigéen ñi nga xam ni dañoo bëgg am jëkkëru tubaab faru tubaab wala ñu soxla bayre am na loo ci liggéey mais ba léegi gars yi xamaguñ ko loo ñuy wax ci loolu. <laughs> dama lay xamal ni la loolu bëgguma ci woon wax tax nit ñi di ma sonal ndax li ma ci yor dafa bari mboolem jigéen boo xamante ni yaa ngi bëgg tubaab. moo xam da bëgg jëkkëru tubaab wala faru tubaab nga soxla ko nga bëgg ko kooku moom maa ngi sunguf boo xamante ni ku ma ko ci jox nga jëfandikoo ko na ko war a jëfandikoo jeex na moom yaay daw bu dee tubaab rek nga soxla yaay daw ndax bëri na ñi nga xamante ne loolu moo leen tere nelaw ndax àdduna ku nekk sa bëgg-bëgg moo xam képp koo xamante ne yaa ngi soxla faru tubaab wala nga soxla jëkkëru tubaab ci kàttanu suy borom boo ma woowee ci numéro bii ma jàppale si nga am ko ci nu mu gën a gaawee waaw mboolem ak bayre bi même bayre bi am naa fi bayre bi nga xamante ni bayre bu doy waar la bayre bu yéeme bayre boo xamante ni bu dee jigéen nga moo xam góor la lépp loo mënti soxla wala lépp looy mënti def nga bëgg ci mbooloo bayre boobu boo ko laalee ci kàttan si borom la ma lay jox nga laal ko yaay moom ñepp lay bambu sa bayra bobu dafa and ak karange nit ñi dañoo sonu de kon limay wax ni képp ku ko soxla moo xam jëkëru tubaab moo xam farum tubaab moo xam bayre bu baax ñëwal set sama ma jox la ko sa aajo faju foofu nag laa yegg yam vidéo bi du gudd mbokk yi mi ngi noonu foofu lay yam képp ku ko ci soxla mën nga xam fi ngay jaar numéro yaa ngi noonu jëf